ñu nuyu di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen ziar di jégal bu baax a baax ah ñoo ngi jógee ba dëkk bi ñu wax naa jam ñaajo bàyyi ko ci gaal yi pour ñëw Kaolack rek ndàngaan naa Cheikh Ibrahima ñas rek moo waral bés bi waaw luñ ci def nag xeeb nañ ko ndax ay taalibe baay lañ ay taalibe baay lañu waaw ñoo ngi jógee depuis 5 heures ba tey la jóg ndax naa Cheikh ibrahim ñaas rek moo waral bés bi waaw bu ñu mënoon jël nag avion sax dañ koy jël bu doon oto tamit daf ñu koy jaral ndax ay taalibe bay lañ ci lu ñu def ci bés bi rek xeeb nañ ko ndax bés bee ko laaj te moo ko waral waaw ah waaw metti na méttiwul ci ñun parce que ñun ay doomu ñoomen ka lañu xam nañ géej xam nañ gaal miin nañ ko xam naa keneen koo gis nag fii suñu teer fii rek ku ko gis na la jaaxal mais comme ñun dañu nekk ay doomu ndox moom li nekk loo xam ne daf ñuy jaaxal waaw xam nañ géej tàmm nañ gaal metti na nag mais comme ay taalibe bàyyi lañu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo ñu ko jaral ci bes bi rek hmm? ah gàmm nga ñaan yàlla rek dugg ci bisimilahi rahmaani rahim jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin rek euh, di ñaan yàlla mu defal ñu wér ak wérle di ko fekk ay atti at rek yàlla defal ñu gàmm bu neex gàmm ak jàmm ak salaam hmm. simnam rek ko yaalo telele ñaananam sak oxana wo ñaan xiɗanamo wod wo danel in wo ngat bo jam ñaajo boori géej yaam bes feke ke waraluna daal mawlana cheikh ibrahima ñas sawom jaranuna in taxi inoox kam na cinq ncufiida bo heure feke mbadiid me in way nqeɗa gamu fa mbelu yit nqeɗanano nu genooxna meeke nu i nqeɗna xeɗan roog a in we njirna roog inna den we ndefna na sofaan xeɗan roog suta den fa jam ndet i ngara jam xeɗan i numtoox na jam na barke maulana sehal ibrahima nqeɗana bajur in ke i yoontiidna i maadan den xeɗan i maadan xaqiid xaqiid na barke roog fo fa barke maulana sehal ibrahima bañ moom jege ka te nuute jaranerna dal wagiro waag rek to a jarana mayu sawe mbonona congke sa sañ'angana ɓodida bo heure feke nda comme i ngara yit a qiin den den waaga ndefna ma wa ngara in way ngeɗa rek madan xa qiid a qiid matan o wodwodanel laye nu merina rek xeɗan o numtoox fa jam nu i ñaanna meen xeɗan roog a jaɓan na in na Maulana Cheikh Al Ibrahima Niass sanitaire de, du district de Kaolack et secretaire exécutif du comité de développement de santé du poste santé de Sam Kaolack. voilà comité de développement sanitaire yi nga xam ne dañoo am liggéey def promotion de la santé ñoom ñoo dajaloo chaque année ni ñu koy defee bu gàmmu jotee rawatina gàmmu international de Medina baay di amal activité yoo xam ne euh, dañuy dugal seen loxo ci wàllu wér-gu-yaramu euh, pèlerin yi nekk noonu njaboot gi ak ñi fi dëkk. loolu nag li ñu ci def mooy jamono bi dafa tombé contexte bu ñu ooyee compost de à euh, crise épidémiologique ñu ràññee ci li ñu ooyee impox sibiru ak yeneen xeetu jàngoro yoo xam ne nawet la ñuy ñëw ci la CDS bi taxaw ne kat ñoom dañoo war a def ay activités yoo xam ne de communication de sensibilisation dugg ci li nga xam ne moo nekk na Baye ak li ko wër pour mën a ñaax askan wi d'abord ci takku masque ci raxasu waaye également ci euh, moytu li nga xam ne moo nekk jaxasoo bi loolu moo waxal euh, ñoom CDS yi tàmbali activité depuis tey jii ci ajuma ji fas ñu ko amoon ba gàmmuwaat activité yooyu nag communication la sensibilisation la information la pour que ni ñi am comportement bu mi ngi ko yi nga xam ne mooy xeex jàngoro yooyu euh, beneen mbir bi aussi mooy que ne dafa am euh, chaque année li ñu ooyee les pèlerins yi nga xam ne mooy ujaaj yi jógee fi nga xam ne moo nekk ci île yi ñooñu dañuy ñëw fii ñëw euh, seen dëkku sëriñ ngir fekkee gàmmu bi ak ñoom et loolu dafa laaj wàccaay wàccaay boobu nag moo waxal CDC ne dañuy amal benn camp médical camp médical bi mooy ku wàcc ci ñoom daanu xool sa température daanu xool également sa li nga xam ne moo nekk sa tension daanu xool sa jafe-jafe ko mais ñaax la également moom nga war a am dëgg-dëgg ci taxawaay ci biir gàmmu bi mooy takk loola masque mooy demandé la nga raxas say loxo mais également mettre dans de bonnes loolu yëpp participation boo xam ne la service dañ koy def ngir gàmm gi gën a mucc ayib waaye naka noonu système de santé waaye également effort effort yi nga xam ne kilifa yi déployé nañ ko muy médecin chef de district muy directrice régionale santé naka noonu dem ba ci kaw ministère de la santé et de l'action sociale dañ ko développé ngir une couverture sanitaire ci gàmmu 2024 CDC nañu lu des lu des seen loxo ci gannaaw daañu aussi ni partenaire technique aussi partenaire financier mais également l'ensemble des membres des CDS pour que ñu dajaloo autour de l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est permettre à tout un chacun de passer un bon gàmmu et pour passer un bon gàmmu lekk naan ci la bokk waaye wér-gu yaram mucc ayib ci la bokk moo tax ñu jël euh, effort yooyu def ko tey moo nga xam ne samp nañu ko fii tey di leen xaar wàccee daañu boo xam ne lépp lu ñu soxla ci koy def loolu nag ñu ngi koy def ci taxawaayu ki nga xam lëkkaloo ci ak euh, kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu santé lu mel ni euh, commission santé bu COMAF euh, médecin chef de district également à l'ensemble des partenaires yi nga xam ne qui interviennent dans le cadre de la couverture santé 2014 2024 ci gàmmu bi. xam nga la co le coût financier c'est pas trop important dans ces activités parce que loo def rek daanaka du la du la doy li ngay bëgg mooy que ne jéego boo jëlee A da ngay dem A Donc le coût sa ça n'a pas été facile de mais avec l'accord et l'appui de, de, de, véritablement partenaires techniques, am na ñoom ci waa Medina Baye ci waa kilifa santé yi ñoom ñëpp boole ak suñuy loxo ñu boole suñuy loxo daal def def loo xam ne dëgg-dëgg neex yàlla lu ñu xeeb la waaye dañu am euh, ñàkk def moom moo garaaw waaye loo jéem rek te na moo tax parfois on ne euh, met pas l'accent sur le coût financier parce que ce qui est important mooy que les pèlerins soient consultés et que les pèlerins soient mis dans d'excellentes la constatation est gratuite, plus non de médicaments. Au Sénégal, on a tendance à dire constatation gratuite. La constatation gratuite, plus non de médicaments, don de masque, mais également communication et sensibilisation pour l'enseignement de comportement. Vous voyez un peu, c'est un paquet que nous avons mis en place. Vous le consultez, le garab, mais également, mais takkuloo la masque raxasuloo la bu boo eggee fa nga jëm mais bu dee da ngaa indaale jàngoor mu yem mu yem fii maanaam l' de couper la chaîne de contamination et la chaîne de transmission de certaines maladies donc loolu moo indi camp boobu moo tax fi la def les de premier secours su ko jaxee mu yem fii bu ko jaxul ñu jàllale beneen structure yi nga xam ne ñoo nekk en partenariat avec le comité d' organisation du Gamou de Médina Baye 2024 ah, depuis euh, l'an avant l'année dernière maanaam ci trois ans CDC euh, ñu ngi am des sociétés de la santé ñu ngi ànd ñoom di lëkkaloo di def liggéey boobu et liggéey boobu aussi euh, maa ngi wax sànq bu ñu jógee fii Amadina Ba également plus de 400 VAD VAD mooy service à domicile dans les maisons parce que sànq wax nañu xamal nañu ne impact su c'est euh, une maladie liée à la mauvaise consommation de certains aliments notamment la viande yàpp bi nga xam ne te bi ñu jëfandikoo ci yàpp bari na lool fii dafa baax bu ñu demee ñu daal di ñaax nit ñi leen aux côtés des techniciens de l'élevage, parce qu'il paraît que l'autorité a mis en place un dispositif pour mieux sensibiliser les populations pour, la, pour une bonne cuisson des aliments. Même si nous avons aussi une chaîne de contamination. Alors, dès que nous avons un impact sur le Sibérie, daanaka am na tamit Medina Baye ñu am gàmmu international mais moi je dirais c'est un gàmmu sous-régional parce que gàmmu boo xam ne euh, ñi ëpp seeni talibé ils viennent de de de l'Afrique euh, du dans le Sahel du nord central donc ñun yëpp dañu leen war a préparer ñaax leen pour que ñu mën a tënkoo euh, avec les mesures héritées par le code de l'hygiène mais également de la santé voilà ñoo tamit ñu ngi leen jaafal baax seen clic pour ce partenariat les CDS également vous lance un appel parce que euh, liggéey bi euh, ci ci internet bi la gën a gaawee te gën a fës te internet jàpp naa lu baax lañ ci war wan lañ ci war a wane te lii bokk nañ yu ci yu baax waaye à côté de cette action y a d'autres maanaam action CDS yemul ci gàmmu rek mais les actions sont continues defoon nañu ko à Touba defoon nañu ko ailleurs quelque part ailleurs donc ñu bëgg na mu continuer moo tax donc la chaîne de collaboration va être euh, comment dirais-je euh, notée aujourd'hui pour mu continuer au bénéfice des populations donc li leen bu baax ñu leen ñaanal une presse boo xam ne euh, honneur à la place de de de l'horreur